ngir ñëw nag barkeelu fii ci jéego yi Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul ci Mauritanie ci Sarsara amal nañu départ bi ci dëkk bu tedd bi di Touba ci fajarug altine gi juróom-ñeenti fan ci weeru mai atum 2022 ci njiitu soxna maam Issa Mbàkke ak mboolem fédération ahlu café yi aju ci moom bàyyeekoo nañu fu nekk ci biir Touba ngir ñëw ànd ak moom jëm ca dëkk bu tedd bile ni ñu ko amale nag fii ci Touba noonu lañ ko amalee ca Ndakaaru ci njiitu soxna Fama Lo mu jiite fédération bi foofee ca sowu. di ci yonent bi salallaahu alayhi wa sallam delloo di santaat Serigne Touba Mbacke di santaat bu baax Cheikh Massamba Mbacke ndax demoon nañ fa daal bu fekkee waat nañ ko ren ñu sant yàlla bu baax di am mbégte bu baax nag ci départ bi ñuy départ fii ci ñaan ñu dem ci bisimilahi rahmaani ñu bi ci alhamdulilahi rabbil alamin comme nañ ko daan defe rek te lépp luñ fa liggéey rek ak luñ fa jëf Serigne Touba nangul ñu ko te lépp tegu ci kaw dëgg rek ak jàmm ak salaam. waaw bi jógee Dakar. xam naa ñoom sax normalement war nañoo départ ndax ñoom ci guddi gi la ñuy départ dugal fanaan waaye suñu eggee fi ñuy ndekkee fi la ñuy xaar ñu mën a daje foofu mën a saafoon teg ñi ñuy foofu mën a départ na wuti dëkk bu seetlu ginnaaw bi ñu déparé ca Ndakaaru ak Touba ci la ñu daal di joxante dox daje fii ci Louga fii nag bi ñu ñëwee ni koy defee at mu jot amal nañ fi ab taxaw négandiku bu am solo boo xam ne nii mënul ñàkk ci liggéey bi. sant rek ndax sëñ tubaa lu ci waay def rek perto te maam Issa jar na lu ne. nanga maam isa mi mooy takk ndigam di dem ba Europe di dem ba Sénégal fenn fenn fu waay nekk rek yaa ngi bëgg a mel ne maam isa man ma bëgg a takk sama digg bëgg a mel du ma mel ne moom sax waaye ma xaw koo jege kon nag maa ngi sant maam isa Mbàkke mii ma dugal ci yoonu sëñ baa yi ba ma di ci laxasu di ci def ay xéewal di sant bu baax a baax di def nañ ko ay ati ati at soxna Njaw Sëy mi nga xam ne noo bokk ay nu raxmati moom moo ko moo ko njëkk a soññee ñu daan ko def ay laax ba mu yàgg ñu soppi ko di ko def ay niin tey nag soxna Njaw dafa génnoon mu ne xañ na xat na te maanaam liggéey bi dafa xaw a jamp léegi mu joxe ndigal pour ñu defar ay madeleine ni di ko soxna si tey sàkku ci soxna si nag ay ñaan. rek ndax ñoom ni ko waxee leen ay ati at rek ñu di ko def ay laax lañ daan indi yu bare bare waaye tey ni mu demee tax ñu def ko nii. kon xam nañ seen yéene ñu leen di ñaanal bu baax rek ngeen yokk ba yëg ko ni ngeen ko waxee rek euh, ñu dund ba ànd ak yéen dem Sarsara loolu rek lañ bëgg suñu jaarate ñëpp ñëpp. gannaaw saafonte yooyu ak yenn ci mbokki taalibe yi nga xam ne nii naka jekk danoo am ay teraanga yu nuy waajal di ko indi fii ci Louga ngir gunge ko mbokki taalibe yi jëm Sarsara ci lañu daal di deqiwaat nag jëm si fi nga xam ne nii moo di Mauritanie gannaaw ay dëkk yu bëri yu romb yu ci mel ni Ndar ak Rosso. ci la ñu daal di jégge frontière ñëw nag Rosso Mauritanie fii nag di bërëb bu am solo ci tukki bi ndax mbooleem lu jëm ci matuwaay ak jumtukaay yi nga xam ne ni war nañ koo am ci ay këyit ak la ci aju ngir mën a dugg ci réew Mauritanie amal nañ ko ci anam yu mucc ayib te amul benn jafe-jafe. suñu tànk ne tey mooy parce que jóge jóge Sénégal suñu réew ñëw ci fii ci Mauritanie mhm. ngir siyaare Sëriñ Tuubaa ca Sarsara dugg nag dem siyaare ji nitu yàlla te yàlla rek tax mhm. wala siyaare ji bërëb bu baax sàkku barke loolu dafa nekk lu am solo lu am am solo la siyaare rek te yàlla tax mhm. ñi nga xam ne sëñ bi da leen a ñoo gare woon Sénégal fekk Mauritanie ñëw ziar si ko dama leen waxoon ci xasida mhm. ne maanaam ziar boobu dañu taxalu ko bàkkaat àdduna alaxira kon nag loolu dafa nekk loo xam ne lu am solo la yàlla si mu defal ñun siyaare bi tamit ñu ñu ñu am ci loolu ni ko sëñ bi waxoon ca Libreville tababu man baachara fii Libreville lii li Bafoli la daa bi ñu ma jëlee Libreville dañ maa yóbbu fu ñu naan Bafoli mooy waa Foli waa wili bato bi mi lañ ko dugaloon mu escale fu ñu naan Cap-Lépès dem ba Mayumba wëlbateeku escale Cap-Lépès continue Lambaréné kon loolu la may fàttali am mbégte lool ci sëñ bi wax ne ñi nga xamante dañuy déplacé ñëw fii nga xamante ne mooy Sarsara ku a xam Sarsara mooy alxaybatul baariya xay xaywatul bahriya mooy euh, fu mel ne ki Gabon waaye bahriya mooy mooy mooy fii nga xamante ne mooy euh, Sarsara muy Mauritania donc li ci xew bari na lool euh, ci ci ci ay ay ay ay ngëneel yu bëri bëri lu mel ne ki téere bi nga xamante ni mooy werdul maxuus mën nañ ko jël cité ak yeneen xasida yoo xamante ni sëñ bind na ko lu ma ko rabbi bi maasro asan muy arrahman rahim wa kaana aqan yu yëpp am na ci waaye incha allah xam naa dañoo bëgg daal mënuñu wax xam naa bu suñuy maam yi ñëw fii dañoo dox ñii di faatu ci yoon wi ñii di demee du desiwaat na ñun nag ñu dugg suñu oto ñëw fii e, e, di ko dundal fas yéene demal e, mur yëpp foofa ñun dañoo war a sant yàlla. sama maam mi ngi may nettali nee na keroog bi muy ñëw fii Sarsara ci Sëñ Tuubaa téeméeri dugub lu koy indaaleel juróom fukk la yenu taalibe bi mu àndal yenu ñeen fukk ñu naan ko maam ñëwee ci sëñ bi waxtu takkusaan lañu egg sëñ bi Sarsara bi ñu yëgloo sëñ bi ne leen bisimilah bi ñëwee sëñ bi ne. Euh, ana lii lu mu sama maam ne li lii de pep pep pep mu ñu indaale woon doon ko siyaare sëñ bi la sëñ bi la na xam moos fii ma toog de pep mu mën a murum koor laa doon ñaan suñu borom hmm. nga xam te yooyu ku na xam ne lu jafe la woon euh, sëñ sëñ sëñ Cheikh Khady Gueye mi ngi naan ma euh, da ngaa waroon nag saa sooy ñëw nga wut ci baraay cër indaale ko mu ne ko loolu moom lu war la lu war la ndax ñooña li ci gën a yéeme moom nee na bu ñu ñëwaa bi ñu ñëwaa ci sëñ bi di siyaare bu ñu bëggee lekk dañuy dem ba ci ginnaaw euh, gàdd gi ci àll bi mhm. tooyal ndox ci janj bi rimb ko lekk ba seen biir fees ñu takkaat seen laxasaay ñun nag ay soos ak lu ne la ñuy xéewloo kon sant daal la war a def ku sa tànk rek ci bata bi na loo yëg kar ba sëñ Tuubaa demee Gabon ba mu tegee ca tànkam ca ca ba gaal ga mun tey suñu borom xamal na ne maay liggéeykatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun nag ñu jóg jaar ca tànk yoon di barkeel fi mu jaaroon kon ñu ñoo war a sant yàlla alhamdulilahi rabil alamin baaxee suturaal ne bañ toppaat ay tànkam di jaar fi mu jaaroon te yaakaar naa yëg-yëg bi ma moom la ñëpp am seetaan image sax yëg-yëg boobu lañ am waaw loolu nag liggéey sëñ Tuubaa rek moo ko man ndax liggéey sëñ Tuubaa dalay raxas ba nga set mu yëgal la ba ca kaw te sa tamit da ci dindi lépp luy keñaan lépp luy ab bon da ko ci dindi moo tax boo ko liggéey sëñ daal moom rek moo fi nekk ci luñ mën a teg loxo kon ñu ngi woo ñëpp ñu ngi woo ñëpp ndax bi nu ñëwee fii ci Rosso Mauritanie wax dëgg yàlla fekk nañ fii Eh, ñi nga xam ne ñooy fédération Seexul Xadim bi bàyyi ko Nouakchott eh, sëñ Abdou Assis Diop mooy yor relation extérieure ak mboolem mbokki taalibe yi nga xam dañoo yor ay bànqaas waaye itam ñi ñu fi fekk muy police muy gendarmerie muy douane ñoom ñëpp yombal nañ liggéey bi daanaka eh, foofu dem rek dañuy kase li nga xamante ne bii mooy mooy liste bi ndax ginnaaw bu ñu amee recommandation bu ambassade bu Mauritanie am recommandation ambassade Sénégal ca Mauritanie. am tam euh, maanaam facilité bu ministre de l'intérieur loolu yombal na lépp ba nga xamante ni bi daanaka yi mun da ñàkk rek muy formalité yi fay bac euh, dagg assurance loolu rek lañ def yi ci des yëpp moom euh, gratuite lañ ñu ko defal wax dëgg yàlla ñu ci sant yàlla bu baax a baax a baax amul benn jafe-jafe ba fii mu nekk ni am nañ digalu yéeg ci oto yi ngir mën a traversé jàll incha allahu taala amul benn problème fii ci Rosso Mauritanie di diggu dox diggante réewum Sénégal ak Mauritanie niñ koy defee at mu jot jàng nañ fa limub alxuraan bu am solo ci ay kaamil yëkkati fi ay xasida ak ay bernde. gannaaw loolu nag ci la convoi bi daal di deqee dugg ci réew Mauritanie. yoon wi nag def nañ ci ay waxtu yu bëri. ñaar fukki waxtu ak ñett ci guddi gi ci la délégation bi agsee ci Nouakchott di capitalu Mauritanie. bin agsee Serigne Sidi Mbacke di kilifa gi nga xam ne nii moo jiite lépp lu jëm ci ziarab Sarsara dalal na délégation bi ci njiitu soxna maam Issa Mbacke gannaaw loolu yëkkati na ay kàddu yu am solo wane mbégteem ci. tukkeem nemmeeku bu am solo bi nga xam ne nii soxna si def na ko ànd ko ak mbooleem délégation yi rawatina Euhlou kafe fii ci réew mi ak bitim réew. Sëñ Tuubaa rek la ñuy la ñuy bàyyil Sëñ rek it lañ koy seet bu baax na ngeen ci fas xam naa ne lañ jot a def foofa hmm, donte weesu na lool la ma doon sàkku fii ndax. da nga ndax man juróom-benn fukk ak juróom-benn barki démb bi ñu génnee koor gi. loolu laa doon sàkku ci sama gaañu fii. 66. tey la ma am ku may junj naan loolu kat sëñ bi daa mel na dana xaw a eh, daanaka ni ko gisee daal dana jafe ma ne nag du jafe. fekk boobu gis nga wax ma li rëy boo xam ne nag kon nu mottali juróom-benn fukk ak juróom-benn yi fii rek. bu defee eh, barab ba nga xam ne mooy barab bu Sarsara. Mm. ñu fas yéene bu fa demee jàng fa jàng fa lim ba luñ ko ndax lu du doy lim yi sax des ko man ay sas la rek dañuy tobbi sas rek ngir nu bañ a sàggan waaye lu ci waay jàng du doy wahaba allahu tabaraka wa taala li kaatibi haadi alxurufi alqurana wa lisaanan arab wa abadoo fii ma maa lam yakun li xayri xat wala yakun li xayri awdu yàlla may may na ko ci alxuraan ak làkku arab loo xam ne mayu ko kenn te doo ko dootul ko kenn may na ko ko loo may ah, ah, ci fàttali Sarsara di bërëb bi nga xam ne nii mu ngi nekk fii ci Mauritanie sëriñ tubaa Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasoul def fi ab diir bu am solo liggéeyal fi boromam wétali ko fi yonent bi ba am fi ay màqaama yu benn góor yàlla musta am loolu tax na nag ngir barkeelu ci jéegoom yooyu at mu jot ñu amal fi ziyaara bu mag ziyaaru Sarsara atum 2022 bi la nag ñu ngi ko dippee cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacke jëkk a nekk xalifaab Serigne Touba cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ñu jàpp ko fukki fan ak ñaar ci weeru mee